Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 30 septembre 2024 sur demee ci élection législative anticipée j'appelle ni que daal du am prolongation jëmale ko daal ci délai bi nga xamante ne dépôt dossier yi ci ministère de l'Intérieur, intérieur ginnaaw bi ñu consensus que danañ def prolongation bi dafa mel ni que di ministre de l'Intérieur intérieur ay supérieur am dañ ko daal di désavoué moom mi Jean Baptiste Tine ginnaaw bu République, rendre public benn communiqué boo xamante d'al, signé nañ ko démb ci dimanche 29 septembre jëmale ko daal ci prolongé li nga xamante ne délai de dépôt dossier yi nga xamante ne ñoo war participer ci scrutin du 17 novembre prochain Jean-Baptiste Mingi informe ngi informé parti politique légalement constitué ak coalition parti politique légalement constitué ay entité yoo xamante ni dañu ay personnes indépendantes jëmale ko période bi nga xamante wax nañu déposer liste de candidature ci élection législative anticipée du 17 novembre 2024 ka amul benn yoon boo xamante ko allongé comme nous ko souhaité Je vous ko daal ci plupart acteurs yi gi nga xamante ni ñoo taxawoon foofu ca rencontre bi di ñaar fukki ñett ci septembre par conséquent nous communiqué daal boo xamante que période bi daal dafay rester fixé samedi 28 septembre dimanche 29 septembre sous minuit jotee conformément ci décret de nga numéro 2024 1981 du 13 septembre 2024 m'ont porté convocation ci corps électoral bi en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre muy communiqué bobu ngeen gis dal amul prolongation nañu jàpp ne que daal dépôt liste yi jeex na li ci jaaxal ni tey ba ci 9h ñi nga xamanteni dal moy yenn ci ay coalition ñi ngi won foofu ci direction générale des élections té ba tay ji déposé guñu won seen liste en tout cas mom dal néna ci minuit la waron jeex mais ba 9h tay ji ci lundi du 17 septembre am na ñoo xamante ni déposé seen liste. Thank